bismillahi rahmaani rahim leerug ngëneel gi ma seen jéenéer ba yegg fu ne ceeneen yi yërmaane yaa ngay tas ci suñ biiru leerug ngëneel gi ma seen jéenéer ba yegg fu ne ceeneer yi yaa ngay tas ci suñ biiru taaram bi jéggi na bët sellam nga yéem sunu xel sol nag cofeel sunu xol ruu yépp a ngiy diiru toqenti barkeem ya def ay géeji may yu du fer mbindeef ya tëmb ca biir ñey feey ak ay nuuru sopp ak liggéey lañu fay mbaale ngërëm ak i ndam gaayay rawante ku gën koo sopp jël tuuru law xoqalam jël si nañ seen wàllu delli du bég kursi yu gunge aras niitoo ci gi leeru aljanna ñee gaay jël ay ndabam wuy si cofee tax ba mu am ay xiina kii xuuru nit mujj ñëw ñu ne ko kaay sàmm taal bi li des roof nañ ko aadama sirru sang bee fooru xam-xam ya ak mbóot ya tas yoneen ya for lañu man toqen xam-xam ya tas mbóot ya yoneen ya for lañu man taxtil mu yëngu ca cër jant ak weeru turam wa tënk na penkook sowu dàmbe na kaw tax suuf di tiitaru mbég càmmoñ ba ndey jooru muhammadun xayru xalqillaahi niamatuna salla alayhi na yërmaaneem la ñuy joor muhammadun xayru xalqillaahi rahmatuna mooy tegtalu tedd ngay taaru ku gëm buuru mooy sopp raw topp raw bul jox sa tum ku ko moy del wommatoo njàngalem kii gindi xelleeru bàkkal ma mbër ma ko jox léppam te daa ko xëyal sayxul xadim ma ko doon bitt ak biiru fa gaaya yam ci cofeel la doore jéego di wéy moo sës ca làkk ba tee sunnaam sa xëy ruuru taaral na téeréem ba teggil xeet wi tiis ak i lor tëggaat xaqiiqatu jàllee kaa ngi kiy fóoru bëggam yoneen waraloon ëttam ba wéet ati at muy wéet ko yàlla ak kañ tudde man suuru nokkeem ya ak yëngu yaak dalam yal kii la ko jox dëkkoo tagg ak di ko way lolleeki ay nooru lu mos mu saf ko turam fu mu tudde julli ci moom guddeem ya lu mos mu saf ko turam fu mu tuddee julli ci moom guddeem ya moom la ko jox jagleel ko njol looru xamul lu wex mbaa lewet ba yëg métiit ak tiis tef kak cofeel ga la mos fu mu duusu mooy tuuru taxañ na yoon ya ci taarub sant koog di ko kañ buri ba bur yàlla yégge ko ba mbindam di fay kooru daawam ya ngiis na ci joobee tiimayam ak i ndam mooy aljanay ruuxam ak jëmmam di doktooru taax ak alal ak i koom amtil place ci xolam yonen ba fees na ko del Seex Bàmba mooy góoru kuy wër ku sopp yonen daj dëpp gaa ngi fi mun mooy moom yonen ba di moom mooy bitti muy biiru jaajëf sëriñ Ahmadu waxtaan wi sedd na xol yàlla nañ ko dégg te dëkkee xentu mi mbooru jaajëf sëriñ Ahmadu waxtaan wi sedd na xol yàlla nañ ko dégg te dëkkee xentu mi mbooru julli euh, yoneen julli borom baag julli borom bi na dëkkee sax ci moom abadan fekk sëñ sabat di ñu jox junneeki ay gis neeru salaamaaleykum